waaw noo ngi rafetlu bu baax en tant que religieux le fait que korité bi suba incha allah nu nar ko célébrer ensemble ñun ñëpp mu nekk benn korité loolu wax dëgg yàlla lu rafet la te loolu du def lu dul li nga xam ne mooy umma islamique waaye itam renforcer itam li nga xam ne mooy bennoo jullit ñi gis nga ci alquran yàlla mosul dañ di nu exhorter di nu ñaax pour nu ànd nekk benn euh, moytu takkaliko moytu division euh, lii nag wax dëgg yàlla lu rafet la te dañuy ñaan yàlla lii mën a continuer nest euh, a renforcer tey li nga xam ne mooy cohésion sociale bi gën nga xam ne mooy réconciliation du peuple kuy waxal yàlla rek gis nga le peuple sénégalais était très divisé depuis euh, quelque euh, temps boobu ba léegi xàjjalikoo bi xiiroo bi ŋaayoo bi bare na kon le fait tey jullit ñi ànd koritendoo mu nekk benn korité lool wax dëgg yàlla lu ñuy rafetlu la di ñaan yàlla aussi wax dëgg yàlla tey division yi nga xam ne ñoo ngi koy gis ci umma islamique tey yooyu mën a nekk loo xam ne wax dëgg yàlla lu ñuy nettali la suñu ginnaaw